lii yàlla tegoon la génnee la ko te nit ñépp jàppale la ci soo waxul nit ñi jërëjëf nag yaa ngi bëgg a doon baadoola parce que nit ku du luñ ko jox rek mu ni maa ko yelloo gor moomul loolu nit moomul loolu donc munoo fi nekk di tërërëri alors que demoo wax nit ñi jërëjëf demoo fekk ku nekk fa mu nekk soo ko mënee way jur xale mag ak ndaw nga ni ko jërëjëf soo paree nag wax wax moom politique da wax ba tawee mais jotagul donc euh, ma bëgg que les camarades comprennent que homme politique moom homme politique rek lay doon ba dee donc politique bi duma ko bàyyi duma ci teggi tànk ci laay dem ba jeex mais may leen ñu rek ñu gërëm nit ñi sant leen suñu paree parce que nag am na lu ñuy wax ci kaw parce que micro yi ngeen ma tegal xam ngeen ne mu fi wax politique xam nañ. léegi ñu door loolu kooku moom bu leen ko sax def problème bu ci kenn am xel ñaari retraité wu ma politique bàyyi wu ma politique gedd soit très très clair pour chaque et euh, chacune de que loolu moom ala kulli àll parce ñun militant lañu mais su jotee rek ñun ñëpp parce que nag li ma bëgg ñu def mooy comme que ñun ñoo àndoon di ñaan ba yàlla tegg ñu lii daañu àndaat waxtaane fa ñu jëm ak lu ñuy def kay ak nan lañ koy defee ak kan mooy def du dëgg du xëy rek di tërërëri donc daañ ko waaj daañu ko waxtaane comme ça ñu sóobandoo sippendoo doxandoo amandoo ndam maa ngi leen di gërëm